seen TV encore ci émission bu ñuy wax seen show ñu laaj ko ci mu ne Macky Sall mënul def troisième mandat te niñ ko ko laajee sax ak niñ laajee ñële du benn mais li mu wax mooy Macky Sall mënul def troisième mandat benn la rek quoi parce que dañ ne ko naka nga gisee en mbaalo wax bi mu wax ne faire un troisième mandat c'est un coup d'état constitutionnel mu ne je confirme léegi je confirme boobu mooy ne Macky Sall ne peut pas faire un troisième mandat léegi moom it ñu dàq ko léegi nag man Sénégal damay laajte est-ce que nous toujours dans un pays de démocratie wala léegi su fekkee ci monarchie lañ nekk nañ ñu ko wax mais la liberté où est la liberté d'expression léegi kon kenn amul droit yow wax li nga xalaat même soo nekkee dans. Euh, une société nationale wala nga nekk un ministre de la république di def sa liggéey comme ni mu waree di def ay résultat yu baax soo ne Macky Sall manul def troisième mandat Macky Sall daf lay dàq parce que loolu moom intérêt personnel am la quoi maanaam yow soo ko défavoriser rek moom da lay dàq xoolul yow résultats yi ngay def ci boîte bi nga nekk te mettre Moussa Diop ñëpp xam nañ ne il faisait de très bon résultats ñëpp ñu ngi ko doon wax am ay innovation Sénégal dem dikk moo ko fa indi ñëpp wax nañ ko ba pare transport interurbain bi tamit mu yokk ko renforcer ko doon initier sax pour Afrique dem dikk nga xamante ni su boobaa nag dakaar dem dikk yi dafay dem ba ay Mali wala mu dem ba Burkina Faso wala mu dem ba Mauritanie dem ci sous-région bi yëpp même kooku yow lu mu la manti wax yow waroo wane ne. yow kenn waru laa wax dara loolu dafay mel ni yow buur nga te yow président de la république nga kon Macky Sall heure bu dàqee nit rek moom nit ki daf koy offensé pour mu dàq ko quoi mais nit ki bu offensé Sénégal saaga sénégalais yi xas sénégalais yi sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ko porté au pouvoir teg ko fu mu nekk moom du leen def dara quoi xam nga Moussa Diop bi ñu defee élection présidentielle yi ba pare génnoon na fi wax wax bu graaw boo xamante ni mën na yee fitna. mu ne waa Touba voté lañu Macky Sall moom dafa amoon sax envie pour ut ay bulldozer ñu dëjjati Ila Touba bi def ko Ila Podor Ila Fouta mais loolu c'est une grave erreur de communication mais loolu su ko si Macky Sall d'accord ñu xam ne kat Moussa Diop mi lu mu wax c'est très dangereux mën naa taal réew man na jaxase réew mi loolu intérêt général la intérêt Sénégal yëpp la. parce que loolu affaire yi communautariste mu ngi ci affaire régionalisme mu ngi ci su boobaa dinañ wax ne kat Moussa Diop mii lu mu def erreur la parce que Ila Touba bi Macky Sall defalu ko waa Touba mais waa Sénégal la ko defar même bu ko defoon pour waa Touba Touba ci Sénégal la bokk nekkul ne Macky Sall dafay def Touba dara wala mu def Fatick dara wala mu def Kaolack dara wala mu def Ziguinchor dara. pour ñooñu votel ko mais dañ daf ko war a def parce que c'est son devoir dañ ko élire pour mu defar réew mi moom moo a su ngeen ma falee dinaa defar lii dinaa defar laa tenir ay promesses sur base la ko nit ñi falee woolu ko kon bu defaree Ila Touba nekkul ne waa Touba dañ ko war a votel par force Ila Touba sax du pour waa Touba kese parce que kuy dem Fuuta bu la neexee nga jaar Ila Touba pour wàññi yoon bi mu gën a gaaw parce que vitesse bi nga mën a daw diggante Dakar ba Touba dagg noon dem génne ji Louga xëñ na mënoo ko daw ci diggante euh, dakaar ba ba ba Thiès ndax doodaan yi ak tali bi nu xate xatee ñii dem Kaolack tamit kazalika naka noonu mën nañoo wàññi yoon bi jaaree ko euh, euh, ilaa Touba bi ñëw ba Diourbel wàcc jël Gossas dem Kaolack ñii dem Saint-Louis kazalika ñii dem Louga ak fépp. kon loolu erreur la woon su fekkoon ci moment boobu nag la ko wàccee dinañ xam ne Macky Sall kat lu mu def lu normal la parce que Moussa Diop li mu wax nii day taal réew baaxut waaye bàyyi na ba loolu passé Sénégalais yëpp coow ko Moussa Diop jéggalu defu ko dara léegi nag ñu dem ba mu laal affaire yi mandaayam bi mu soog kaa dàq comme ni mu defoon Sori Kaba def ko Moustapha Diakhaté te li mu def Moustapha Diakhaté taxul Moustapha Diakhaté noppi Moustapha Diakhaté mu ngi ne di wax ba léegi parce que Moustapha Diakhaté daf na moom kenn du ko kenn du jël buum di takk ci baatam bi du jaamu kenn ba nga koy teree wax man noonu laa mel man mii tey Macky Sall laa bu jëloon fetel teg ko fii sama bopp bi na soo waxee troisième mandat bi ma tiire ma ne ko tiireel parce que man damaa gisul ku ma mën a teree wax sama xalaat man ci àdduna bii nii ñu nekk du kenn ci àdduna bi amul kenn ku am maqaama boobu noonu man du poste moo ma koy jaral du un milliard du dara tey jii man su ma nekkoon ak Macky Sall dàq nañu bu yàgg parce que su ma demee ci média bu ñu ma laajee troisième mandat ma ne Macky Sall ne peut pas faire un troisième mandat parce que la constitution est au-dessus tout le monde nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs c'est clair mais su fekkee nag ñoom da ñi ànd ak moom ay tapet lañ wala dañoo bëgg a nekk suqu wala seen poste yooyu noonu nga xamante ni c'est éphémère day jeex dañuy lu mu yàgg-yàgg dinañ dee bàyyi ko fi ah? moo leen jaral nit di leen tere wax ñoom mel ni ñoom ay jaam lañ kon ñoom dañoo ñàkk fayda dañoo ñàkk fayda man de kenn du ma teree wax sama xalaat man man ak Moustapha Diakhaté ñoo yem man su may àndak ak yow koo manti doon su wax dëgg jotee dama la koy wax par force may dund wala may dee parce que ñun duñ wax kenn ne la yàlla mu ngi lay nuyu te gisuñu yàlla duñ jay kenn suñuy ànd ak nit dañuy ànd ak nit dans le respect moo xam nga nekk président de la république nekkal buur rek loo manti nekk ci àdduna bi su wax dëgg jotee xulil xaq walaw kaana murran te bu ñuy ànd ak yow dañuy ànd ak yow ci dëgg ak ci ragal yàlla wa taawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal doomi adama danga ngaa war a gëm sa bopp gëm yàlla xam ne Macky Sall du yàlla du yonant man Macky Sall manu manu ma tere wax man sama xalaat man ci Sénégal man mii di wax ak yéen billaahi wallaahi wa tallaahi donte balu fetal lañ may dóor ci bopp ma dee nekk martyr ndax sama dëkk jaral na ma ko Moustapha Diakhaté si loolu la nekk wax na ci troisième mandat mu dàq ko mu continuer dem si plateau yëpp di wax xalaatam Sori Kaba moom man du ma ko défendre parce que moom tekkiwul dara moom dañ kaa dàq ba pare mu toppaat ci gannaaw Macky Sall nekk suq di neexalaate parce que démb ñu ngi koy invité mu nekk fa di raay di neexalaate di jëm a défendre Macky Sall ci injustice yu ñu teg nit ñi ce qui est anormal moom moom kenn du ko défendre ti nekk victime ba pare nit ñi di la défendre nga nekkaat nekk poltron nekk suq di dunguru di neexalaat Moussa Diop conseil bu ñu lay jox mooy am nga sa parti allié wu Macky Sall nga woon li nga war a njëkk def mooy ci démission à la tête de la coalition xaw ma Macky 2012 xaw ma nga préparé samp sa nënd parce que sénégalais nga am nga ci droit ci élection yi di ñëw opposé Macky Sall parce que li muy def c'est pas du tout normal tegu ko fen lan moo tax kenn du wax dëgg lan moo tax kenn du wax sa xalaat mais nit ñi dañoo war a wax seen xalaat liberté d'expression anamu am na démb ñu doon wax naan Macky Sall mën naa am dàq bi sax du troisième mandat bi waaye le fait que mu prononcé wu ci affaire Alassane Ouattara beeg affaire euh, Alpha Condé bi Guinée ak Côte d'Ivoire mën na indi incidence euh, diplomatique ban incidence diplomatique mais communauté lañ wax communauté économique des états de l' Afrique de l'Ouest képp ku ci bokk ñun carte d'identité CEDEAO la ñu yore yore passeport CEDEAO kon képp ku nekk ci communauté bi boo gisee lu jaaduwul ci beneen réew ba da ngaa am droit wax ko benn incidence diplomatique mënu cee am loolu dañ koy layee mais troisième mandat bi Moussa troisième mandat bi moo tax mu dàq Moussa Diop musa Diop waxoon na fi lu gën a garaaw def fi lu gën a garaaw te dàquñ ko affaire Touba bi li mu ci waxoon Ila Touba bi moo gën a garaaw fuuf su ko dàqoon ci moment boobu kenn du ko wax dara mais Macky Sall intérêt personnel am lay sàmm troisième mandat bi ñu koy waxal daf kaa bëgg moo tax ci loolu la nekk acte yu muy posé yëpp il veut briguer un troisième mandat waaye sénégalais yi duñ nangu lool xaw ma nag yan pexe la bëgg a def pour def ko. mais gëm naa ne bu ñu naree àgg foofu sénégalais luñ passif passif su boobaa seen passivité bi dina deñ pour faire face à Macky Sall wan ko ne ko le pays ne t'appartient pa dafa am sama benn xarit bu am xorom ñu koy wax euh, Tanor Sankaris nekk Bordeaux ma koy nuyu au passage dafa publier démb ci page am mu ne Macky Sall est-ce que Marème Faye sax bu waxoon ci troisième mandat bi du ko fase quoi ma ne ko mën na nekk de. te coow troisième mandat bii nii mais Macky Sall moo indi coow li coow li kenn indi ko ba ñoo dee ñu naan Sénégalais ñoo nekk di coow ci troisième mandat maa ngi dégg kiriku di ko wax démb Abdou Mbow moom mi nga xamante ni moom mooy agneau du sacrifice moom moom patate chaude bi toujours moom lañ koy jox bu affaire bi tàngee ba tàng journalistes yi bu ñu oowee waa APR yi ñëppay daw débat bi moom mooy ñëw moom di lay di defendre défendre l'indéfendable nekk l'avocat du diable Abdou Mbow l'avocat du diable à chaque fois bu Macky Sall defee ay conneries moom mooy ñëw di ko jéem a défendre nee na sénégalais ñoo nekk di wax ci affaire troisième mandat mais Macky Sall moom waxut sax ci affaire troisième mandat li mu ci doon wax wax na ko ba pare. je suis désolé Abdou mbaw Macky Sall suñ demee bay waxaat ci troisième mandat moom moo indi lëndëmal ci troisième mandat parce que moom moo waxoon waxeet li mu doon wax au début suñ buñ ko ci laajaatee ah. su waxoon lu leer ne man mënuma am troisième mandat comme ni mu ko waxee woon su ko waxaatee woon noon ku noon gars yi fàtte nañ débat bi close nañ ko mais est-ce que Niger ñu ngi coow ci troisième mandat Niger coowuñ ci troisième mandat parce que Oussouffou il a été clair Oussouffou daf ne man constitution bi permettre ma pour ma def troisième mandat te alternance générationnelle dafa war a am man def naa sama deux mandats ba pare damay jox ñeneen ñu dem doxal. mais est-ce que Macky Sall bu waxoon bu amoon honnêteté boobu noonu wala su fekkee il était de bonne foi wax wax jooju noonu nu mu leeree li Oussouf wax mu lu mu leeree noonu konoon sénégalais tourné lañu la page mais parce que moom moo indi jiixi jaax ci xel yi mooy lëndëmal xel yi parce que la mu waxoon daaw jéeg ak la mu wax daaw du benn dañ ko si njëkk a laaj mu ne man constitution bi man maa ko voté lu def ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs kon man su ma amee premier mandat beneen mandat bi mooy deuxième te mooy nekk le dernier tamit pare naa ci mu gagné élection yi jàkkaarloog journaliste yi ñu interpellé waat ko pour mu fàttali affaire parce que la répétition est pédagogique mais nañu waxante dëgg la répétition et pédagogique parce que il venait juste d'être réélu il venait juste d'être réélu di soog a commencé nag benn quinquennat mu nekk dernier mandat mais dañ koy laaj laaj rek récapitulation la ne ko ah président kat comme dañuy waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom moo soxal wàllu réew mi est-ce que yow xalaat nga am troisième mandat parce que boobu am na ay genre tailleur de la constitution yoo xamante ni ñu ngi doon commencé di wax ne Macky Sall mën na def troisième mandat moom mu topp leen ci loolu. est-ce que moom mënul woon close débat bi ci moment boobu noonu wax journaliste yi ne leen sincèrement wax dëgg yàlla loolu dama waxoon sax na dootuma ci waxati waaye la ma waxoon daaw moom laay waxaat man fal nañ ma 2012 falaat nañ ma 2019 mënuma amaat beneen mandat jeex na mais mu ñëwaat ne du ma wax non du ma wax wii du ma wax non lan mooy loolu ba pare lay benn lay boo xam ne indi benn prétexte boo xam ne man je suis pas d'accord je suis désolé loolu du prétexte ay su ma waxee ne damay def euh, trois euh, du ma def troisième mandat sama gars yi dootuñu liggéeyati lan moo tax sa gars yi dootuñu liggéeyati xanaa ñoom liggéeyuñ pour Sénégal parce que kenn ku nekk dangay ngay wane da ngaa a nekk euh, président mais am na ñoo xam ne àdduna du yàgg bañ nekk candidat xam nañ seen bopp lan mooy teree liggéey nit ñi loolu du prétexte bu baax xam nga lan mooy affaire bi. amoo droit def troisième mandat constitution bi moo la tiim yow tiim sénégalais yëpp constitution bi moo la tiim yow président Macky Sall tiim tous les sénégalais amul ay wii ak du ma wax wii du ma wax non amoo droit wax sax lool parce que constitution bi moo la permettre permettrewul yow nga def troisième mandat suñu la ko laajee xam nga lan nga war a wax président Macky Sall ma def troisième mandat Macky Sall mënoo def troisième mandat jarul ay suma gars yi duñu ay c'est-à-dire yooyu ay waxu caaxaan la loolu du lay il faut être honnête et véridique dans la vie si j'étais à sa place ñu laaj ma ci suñu heure bu ñu ma ko laajee ma ma tontu mais tontu boo xam ne trent trente secondes la xaw ma est que dina ko mat sax président ndax di nga def troisième mandat non non du ma ko def bi mooy sama dernier bu subaa bu ñu ma ko laajaatee ma waxaat ko lu may wàññi mais loolu da ngay tax nit ñi sax gën la jox cër gën la respecté xam na yow sàmm nga sa kàddu ba pare yu ñaaw yi nga defoon. fen yi nga fenoon si gannaaw yëpp mën nañ la kaa sax jéggal après mooy li nga waxoon ne da ngay réduire mandat bi jëlee ko sept ans yóbbu ko cinq ans yooyu sax boobaat nañ la ko jéggal ne kii sax ah au moins sax si affaire mandat bi respecté na ci kàddoom waaye nag affaire mandat bi respecté kàddoog ñàkk respecté kàddu sax daf cee amul parce que loolu benn référendum bu sénégalais yi la sénégalais yi ñoo vote ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs gannaaw bi ñu waxee ne le mandat présidentiel est de cinq ans renouvelable une seule fois amul kenn ku ci man tous du benn sénégalais bu mën a dindi loolu amut du juge du kenn du waa conseil constitutionnel du Macky Sall du kenn kenn amul prérogative dindi lu nekk ci constitution bi le peuple est souverain peuple bi ñoo ne nul ne peut exercer de deux mandats consécutifs amal ngor def nga ñaari mandat bii nii deuxième bii mooy sa dernier deuxième et dernier mandat ñëpp am droit wax ci nag man de su ma fa nekkoon man moom laa la wax ah moo xam ma nekk APR moo xam ma nekk allié mbokk ci coalition man moom dàq nañoo bu yàgg parce que man maa dul nangu man nit di ma di ma terroriser man nan ma doo wax te ñu nekk ci dëkk boo xamante ni liberté d'expression dafa am ñu nekk dans dans une démocratie dans une république ku nekk di am sa xalaat di ko wax mais lan la mais un ministre de la république bu Macky Sall am na droit ñëw toog dans un débat télévisé ñu laaj ko ne ndax président dina def troisième mandat mu ne amu ci droit mais loolu mooy dëgg ji mais fu nekk nii ñëpp la terroriser ñëpp a tapet mel ni ay suqu ay jaam. mais ut leen ay kii nii nu mu tuddati ay buum wala ay chaîne ngeen jox ko Macky Sall mu yeew ko seen baat yi comme que yéen poste ministériel ak ay post électif député yi wala ay euh, directeur général moo leen jaral yéen ngeen ne seen xalaat du ngeen ko wax kuñ si laaj nga exqui nga esquiver question bi affaire troisième mandat moom maintenant c'est une patate chaude kenn ñemewut a wax ci affaire troisième mandat bi lu dul nga bañ a seq ak Macky Sall dara nga nekk dans l'opposition wala comme ñun ñi nga xam ne ñoo moom suñu bopp kenn moomuñu ñun ganaaru kenn nenu ñu ñun dañoo am liberté di wax lu ñu neex lu ñu neex dañ koy wax duñ saaga nag kenn duñ xas kenn mais lu jëm ci réew mi nga xam ne ñoo ko bokk billaahi wallahi bu ñu ci waree wax dañ ciy wax ba sagar xeeñ lu ñu ci fekk ñu jël nañ ci dee Macky Sall amul droit def troisième mandat te du ko fi def su fekkee loolu moo tax muy dàq nit ñi mais gars yi su fekkoon ne ñoom ay vrai patriote lañ wala ñi nga xamante ni dañoo bëgg liberté kuñ ci laaj di nga ci wax mu dàq la mais na dàq ñëpp na leen jaral mu dàq nguur gi yëpp bañ a amati gouvernement su fekkee jaral na ko ko na dàq ñëpp mais ñoom ñëpp fu mu nekk ni ñu ngi ne mukk ci seen kër yi ci seen bureau yi ci seen néeg yi làqatu koo ci invité mu ne la sa waay ah affaire troisième mandat moo ci laaj de bu ñëwee ci coulisse da la koy wax su fekkee benn victime dafa am comme la dernière victime mooy Moussa Diop mii kuñ invité da ngay daw Maimouna Ndour Faye wax na ko démb euh, grand Momar Diong Maimouna Ndour Faye nee na kuñ invité nga daw ñeme kenn du ñëpp ñu am na xam ne sax buñ gisee téléphone u Maimouna Ndour Faye numéro am affiché duñ ko jël wala ñu fay téléphone bi wala ñu gis téléphone seen TV xam nga dañuy yore euh, numéro média bi yëpp nga xam ne suñ lay invité di nga xam di nga xam ku lay oo quoi suñ lay oo nga xam dañ la soxla mais bu ñu leen awee ci moment boobu dañuy xam dañ leen di oo ci débat wu troisième mandat bi tax ñu dàq Moussa Diop mais dañuy daw lan moo ko lan moo ko jar lan moo ko fi jar ci àdduna lan mooy postu xanaa du ngeen dee xanaa du ngeen dee laay laajte lan mooy postu mais liberté moo dàq ay postu man de wax dëgg yàlla sama liberté ah moo ma gënal xaalis billaahi wallaahi wa tallaahi sama liberté sama dignité moo ma gënal fuuf ñu def ma ministre moom ma gënal foofu ñu def ma euh, président euh, ñu ñu ñu def ma directeur général wala ñu def ma PCA wala dara mais man ay poste PCA ay directeur général nga xam ne c'est éphémère lu mu yàgg-yàgg day jeex man ngaa nekk directeur général sax dee ci direction bi mën ngaa nekk ministre nga dee mën nga nekk PCA dee mais loo xam ne lu mu yàgg-yàgg da koy perte mais doo gëm sa bopp ah mais ñàkk fayda yambar ñàkk xorom bëgg affaire yi suq waa ji di leen napp mel ni moom mooy yàlla wala mooy yonent bi moom yàlla la wala yonent la mais yéen bi ngeen yéen yéen yéen ñi nga xam ne Macky Sall da leen di tiital ne leen bu ngeen wax ci troisième mandat ku ci wax ma dagg sa bopp dàq la mais est-ce que yéen bi ngeen di juddu moom yëg na ko moom am na ñoo xam ne bi ngeen di juddu Macky Sall juddoogul moom. am na ñoo xam ne ñoo mag Macky sàll mën nañ sax nijaay Macky Sall laa wax am ñoo xam ne Macky ay moromam lañ am na ñoo xam ne Macky lu mu leen màggee tuuti la yow ma juddu xamoo sama yaay nu ma juree may lekk di naan jàng école fayeloo ma école yóbbuwoo ma université defoo ci man dara doo sama waajur doo sama dara liggéeyal réew mi boole ñu muy politique ma am compétence tax nga fal ma jox ma ma nekk directeur général wala ma nekk ministre wala ma nekk PCA wala ma nekk ambassadeur wala leneen pour liggéeyal réew mi nga may yab naan ma doo wax mais non mais mais man su ma gisee ku mel noon kon yow kon kon xanaa dangay ngay dem delluwaat nekk jaam kon comme suñ maam yi nu leen nu leen tubaab yi defoon ut chaîne di leen takk di dóor mais nañ nangu lool wala ngeen nekk xaj ngeen baal ma ci wax ji ku lay teree wax sa xalaat si réew mi si réew mi nga bëgg dëkk yow ndax poste ministériel ndax direction mu ne la bu kenn wax ci troisième mandat bi waxu na la bu kenn wax ci loo xam ne day taal réew mi waxu leen bu leen bu leen wax ci affaire ethnique bu leen wax ci affaire communautarisme lépp loo xamante ni dafay taal réew mi te interdit wu mais moom li nga xamante ni daf koy défavoriser pour mu bañ a am troisième mandat mu ne bu leen ci wax ngeen noppi du ngeen wax ñëpp tàppet mais mais man man sénégalais yi jaaxal nañ ma quoi wallahi sénégalais yi jaaxal nañ ma teg li ma gën a métti mooy gis nga gaaya mi escandalo escandale def nañ ko fi waa ji du leen def dara deniers publics détournement de deniers publics laa la wax mais loolu nga war cee sanctionné ni dàq ko ñu yóbbu ko tribunal juge ko parce que alalu réew mi la mais ñooñu da leen di protéger moom du leen defal du leen def dara da leen di sax promouvoir am na ñoo xam ne dañ leen a épinglé corps de contrôle yi da leen ku ci mel ni Cheikh Omar Anne nekkoon kuddu centre des œuvres universitaires de Dakar ñu épinglé ko ci ay surfacturation waa ji promouvoir ko. ko rénuméré laa la rémunération la ko defal yóbbu ko def ko ministre de l' enseignement supérieur sénégalais yi di wax mu leen faalewuma leen te loolu xaalisu sénégalais yi la loolu scandale la ko kañ ñu dàq ko dagan na mais dàqul kooku li taxaw fii ne Macky Sall juridiquement il a le droit de se présenté pour une troisième fois kenn defu ko dara ñeneen